بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين noo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala aji màgg ji te kawe noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni moom sunu borom rek mooy ki ko jagoo nu ngi julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquran alkarim tey di fukki ñaar fukki fan ak juróom ñett ci shahru ramadan al mubarak kon day su boobaa dafa mel ni weeru koor mu ngi ca njomboxtalu tàggatoo ñaari fan da cay des gën jaa yàgg wala benn assalaf muy salafu saalix ñi nga xam ni ñoom ak seenab sëriñ di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan nu royloo ñoom day bu ñu musaan a yegg si ci fii dañ daan yëg aw tiis ndax gan goo xam ni bi muy ñëw sa kër lu loo lu nit xalaatu ci xeeti teraanga buy ñëw da koy ëndaale teraanga mënta weesu tàbbi àjjana ginnaaw tàbbi àjjana amul beneen teraanga bu am te moom bokk na ci teraanga yi muy ëndaale mooy tàbbi àjjana jéggalu bàkkaar yaatalug wërsëg tawfiq ak njub gindee ko ragal yàlla kon gan gii day li muy indaale ci ay sërica te moo ne li muy indaale lépp du ci yóbbaale waat dara lépp da koy bàyyeeg ñim doon fekk si jàpp naa ni gan gii gu mel nii bu doon ab nit la kooka képp ku koy ganale doo bëgg mu ñibbi yëg-yëg yi nag mi ngi toll ci kemtalaayu ngëm gi ndax weeru koor ku ko gëmee nii xam ni gan gi nii la mel te bu demee ba lay dellu siwaat déwén amaan na mu gane siwaat fekk fi say morom du la fi fekk yow kon boo ndaalee ay xéewal xéewal yi moom dana ñëwaat waaye yow moom du la fi fekk nun day ñoo ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ji ak mbaaxam gi sellam gi ak kaawaayam gi ak jiitu gi nga xam ni yërmandeem da koo jiitu am sàññam akub meram yàlla na borom bi subhanahu wa taala boole ñu minal maqbulin al faisin yàlla na borom bi booleñ ci ñi nga xam ni ñoom dàq giñ doon dàq laylatul qadr di ko koj day fekk jàpp nañ ko yàlla na borom bi boole ñu ci ñooñee nga xam ni weeru koor wala ay weeru koor dana leen fi fekkaat fekk leen fi ci gën jaa yaatuk ngëm gën jaa weeruk ngëm gën jaa sax ci njub bu fekkee du loolu la borom bi namm ci ñun li mu namm ci ñun mooy bii nekk suñu mu jëntalit borom bi def ko mu nekk bi gën a nangu ci yiñ mas a def ci kaw suuf dellu siwaat nañ kon ci suñu tafsirul quran al azim tey ginnaaw boo xam ni borom bi defaloon nañu tawfiq ba ñu jeexal suuratu muhammad tey ñu ngi tàmbali saaru màgg wu rëy wii di suuratul fatxi suuratul fatxi bokk na ci saar yi nga xam ne dañoo wàcc madina lamboo ñaar fukki aaya ak juróom-ñeent di fanweer bu manqué benn dëgg la su ma nee madina la wàcc ñi xam histoire daf leen di jaaxal ndax saar yu wàccul biir madina saar wi ci saar yi wàcc madina la bokk waaye wàccul biir madina ndax xam ngeen ni alquran borom xam-xam yi comme niñ ko séddalee saar yi daa wàcc màkk saar yi wàcc madina yee wàcc diggante màkk ak madina yee wàcc ci tukki yi wàcc ci teew yi wàcc ci bëccëg yi wàcc ci guddi yi wàcc ci xare yi wàcc ci jàmm façon yooyu yépp borom xam-xami li lislaam yi dajale nañ ko xam nañ ko loolu daf lay wan al aynayatu l faiqa bi nga xam ni mag yu yàgg yu baax ya joxoon nañ ko alquran moo tax ibni masud doon giñ ci yàlla ni amul jenn aaya ju wàcc ci alquran lu dul mën naa laa wax bëccëg la wàcc wala guddi daa naaj wala da doon taw te it nag bàkkoowuma ko waaye fi mu ne nii de yàlla baaxee na ma xam quran mu ne su ma xamoon koo xam ni moo ma gën a dégg alquran te ay tànk mën a dox yegg ca moom mu ne ma rëppatan fas dem fa wax na dëgg ndax jamono jamay wax loolu xam ngeen ibni masud moom ak ibni abbas ibni masud moom ak ibni abbas moo ko jëkk a faatu ba ibni masud di wax lii boo fekk na moom mag la ndax fekkee na lu badar fekkee na ñoom badar ak yooyu te ibni abbas bi yent bi faatu fukki at la am kon foo rek ibni abbas ginnaaw ibni masud la lu ma ta bàyyi xel a ngoo ko saar wi di suratul fatxi mi ngi wàcc diggante makka ak madina yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca solxul xudaybiya ca la saar wi wàccee di suratul fatxi imaamu ahmad mi ngi nettali ci musnad ñu jëlee ci abdullahi ibni mugaffal alsaxaabiyu aljalil abdullahi ibni mugaffal mu ni yonent bi day dafa jàngoon keroog amal fatx foofu nag ñu bari dañuy jaawale bu ñu nee fatxu seen xel day dem ci fatxu màkka fatxu makka kaana fatxan wa sulxul xudaybiyati kaana fatxan ñaar yëpp ay fatxu la waaye nag li tax a wàcc inna fataxnaa moom du fatxu makka déedéet mooy sulxul xudaybiya loolu nag lu yomb a jaawale la ndax dañoo nuroo lool te bokkale ay yëf nee na yonent bi bi muy jàng mi ngi jàpp saar wi di ko biij di ko neexal di ko nef nafal noo xam ni yéemoon na saxaaba yi muawiyat ibn abi sufyan mu ni wallahi bu dul woon ak bañ a tiitaru xoolal saxaaba yi mbokk yi ni ñu ragalee yàlla mu ni wallahi bu dul woon ak bañ a tiitaru ak bañ nit ñi dajaloo fii naan muawiya mooy jàng ma biijal leen ko comme ni ko yonent bi doon defee sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi xoolal saxaaba yi ni fi ñu yeggoon ci daw tiitaru ak siiw ak fës ak ñun fi nu yegg tey ci bëgg tiitaru ak siiw ak fës am na kenn ci saxaaba yi dafa toog ba mu yàgg mu ni fii ma taxaw barab bii fala yonent bi taxawoon doon julli witr te keroog bi muy julli witr téeméeri ràkk la jàng ci suuratu nisa loolu yonent bi def na ko ci witr téeméeri aaya ci suuratu nisa mu ni xaw tuuti kon rek ma ñemee taxaw léegi fa mu taxawoon ni leen fii ma rëdd sama tànk yi riij ko ci foofu la yonent bi riiñoon ay tànkam gis nga wa kadalika yeneen saxaaba ya abu xumaydin assaaidi mu ni bu ngeen bëggee léegi ma kabbaar jullil leen comme na yonent bi doon jullee léegi ma def ko gaa yi ni ko acca bi mu ko defee ba nag fukki saxaabaa ko fekkee ñu ni ko gisuñu lu tolloog gàttaayu xef lu wuuteeg sa julli geeg julli gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu da lay wan ni ñoom dañ ko doon roy trop nag dañ koo toppoon di ko suivre benn par benn kon mu ni su ma bañul woon nit ñi dajaloo ci man wala tiitaru danaa jàng saar wi ngeen dégg saar wi nag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee ca sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya nag insha allah sunu darsab suba ci inna alladina yubayiunaka innama yubayiuna allah soobe yàlla dinañ ci leeral lu yaatu yaakaar naa am na dige boo xam ne digoon nañ ko dige woon nañ ko ñu ngi koy fàttaliku fi mu toll nii ndax newoon naa leen sulxul xudaybiya ci boppam am njàng da cee nekk comme ni ma leen ko waxee quran te defe naa démb ci guddi ñu wax ko ak bis bi ko jiitu te bis bu ne duñu dañ di ko wax alquran ci ba mbokk yi bu ñu koy tadabbur lépp leen ci mën a jàngee gis nga sulxul xudaybiya li ci nekk ci am njàng rawati ci nangoo am kilifa nangoo dégg ndigal rawatina sa kilifa bu la digalee noo xam ne gisee woo noona nga gaaw fekk si ko ca noona maanaam ay xeeti njàngale yoo xam ne ci wàllu kilif téef ak kila yilif moom dana xam loo xam ne yow xamoo ko ak li wolof yi naan mag dana toog ci suuf di seen lu sori gën a yéeg ca kaw te du ko seen ah ak kilifa saa bu ko njabootam moyee nan la war a def yooyu yëpp ay xeeti njàngale la yoo xam ni ak yeneen yu dut moom mën naa feeñ incha allah suba ci dars bi comme diggé woon nañ ko bu yàgg ñu matal ko ci bind boobu ci atum juróom-benneel ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tombeek dil qaada moo tax boo demee ci téere yi jàngale fiq dañuy wax ne yonent bi ñeenti yoon la masa umra ñeenti yoon yooya ku mel ni ibn al qayim bokk na ci ñi ko gën a leeral ci zaadul maad fi hadi xayril ibad boo demee day tudd am na umra joo xam ne mi ngi ko defee woon ci zil qaada jooja moo tombeek jii may wax tey tombeek sulhul xudaybiya yonent bi dafa ñëwoon bëgg a umra si ah bi mu dikkee bëgg a umra bëgg a dugg màkka ah yéefar yi daal di koy yëg biñ ko yëgee daal di dox digganteem ni ko doo dugg ci dëkk bi ah bi loolu amee coow daal di bari fu lool foofa ba yonent bi siñanteeg ñoom ah ay accord yoo xam ni moom bokk na ca mooy ren moom doo dugg ma doo dugg fekk saxaaba yi booba seen yaram yaa ngi fet fet ndax ren moom jàpp nañ ni ku leen tëree dugg maak ku nekk da nga leen tëral tabaskee leen loolu moo juróon coow la diggante yonent bi ak ay saxaabaam te loolu incha allah danañ ko leeral moo tax Ibn Mas'ud nee na moo yéen nit ñi day dégg naa da ngeen di jàppee fatxu Makka naan mooy fatxu moo tax saari wàcc mu ni déedéet mu ni ñun sulxul Xudaybiya lañ doon jàppee fatxu Jaabir wax na lu ni mel mu ni maa kunna nauddu lfatxa illa yawma alxudaybiya nee na ñun dooñu compter fatxu di ko tuddee fatxu lu dul ca keroog Xudaybiya ni ki noonu Jaabir nee na yéen di fatxu makka rek ngeen di tuddee fatxu makka mu ni wa kaana fatxu makkata fatxan wa nahnu nauddu lfatxa bayata ridwan yowma alxudaybiya nee na fatxu makka dëgg la moom mooy fatxu waaye bii nag fatxu la boo xam ni moom la ñuy tuddee bayatu ridwan moom la yonente bi salaa sallam jaayante woon ak saxaaba yi ni Ousmane moom bu dee faatu na moom suñ bakkan yi na araamal dund ndeke Ousmane faatuwut information bu wérul la loolu da lay wan ne yonente bi sax xamul kumpa salaa sallam lu dul la ko yàlla xamal kon keneen ko dul moom daanaka jërul sax ñu yàgg ci waxam di ci sonal suñu bopp keroog ñu ngi nekkoon junney nit ak ñeenti téeméer comme ni ko Jaabir ibn Abdullah waxee ah ci ay riwaaya te loolu incha allahu dana ñëw Omar ibn al-Khattab ci hadis boo xam ne mi ngi ci musnadu Ahmad ibn Hanbal mu ni keroog sulxul xudaybiya nee na damaa ñëwoon laaj yonent bi ab laaj yonent bi ne këj faalewuma ma delluwaat laajaat ko laaj bi yonent bi ne këj faalewuma ma dellu ko laajaat ko laaj bi ñett yoon yonent bi faalewu ko Omar mu ni ah hi man de boo demee damaa def njaaxum saxaaba yi dañ daan def loolu bu ñu masaan laaj yonent bi tontuwu leen wala yonent bi waxtaan benn waay comme bi muy waxtaan bu yàgg mu ni benn waay dikk ni ko eh daam lu may laaj yonent bi dagg waxtaan ni ko looy laaj mu ne dama bëgg a laaj masuur bëft bi ñu naan moom la ñuy wal yowmal qiyaam mooy lan yonent bi wëlbatiku ne continuer waxtaanam saxaaba yépp tiit jàpp ni daa waa ji daa wax musiba fekk déedéet waa ji lim laaj dafa am solo am solo gox dañ ko bëgg a beral loxo bàyyi ba waxtaan wi jeex ñu doog koy tontu ba mu paree mu ni waaw ki doon laaj laaj bi comme waa ji mu nga ha anada mu ni ko daal di koy tontu Omar nee na ma daal di rëppatal saaw fas jiitu ma ni man tey rek laay dee Omar mu ni ma ni tey rek laay dee ndax alquran moom buy wàcc rek tey ma torox maanaam tey mu yedd ma li ma def baaxul nee na moo tax nangumaa toog ci mboolam parce que dama doon bañ sama gàcce wàcc nee na bi loolu amee ma jékki-jékki ba mu yàgg rek ma dégg benn woote kat dan eh Omar wuyul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne tey rek laay dee nag moom mu ne bi mu waxee wuyul yonent bi moom ma ne tey rek laay dee nee na bi ma ñëwee ci yonent bi saa sallam booba maa ngi fet-feti jàpp ni musiba am na yonent bi ni ko Omar xanaa xamoo ni yàlla wàcce ci wàcce na ci man biig saar woo xam ni moo ma gënal àddina ak li àddina ëmb mu ni ko lan la mbaa jàmm mu ni ko inna fataxna laka fatxan mubina li yagf Omar nee na ci la sama xol doog a dal nag ma xam ni kon ndekete defuma njaaxum xadis boobu imam Buxaari solo na ko imam Tirmisi ak Nasaa'i ak imaamu Malik imaamu daaril hijra kon saar wi mbokk yi saaru màgg la bal sax bi mu yegsee ci jàng aaya ji saxaaba yi dañ ni yonent bi dañ ñu ngi lay ndokkeel ndax yàlla neen li yaxfira laka allahu ma taqaddam min danbika ma taaxar yow yàlla jéggal na la li nga def jéggal la loo defagut yow dañ ñu ngi lay ndokkeel loolu la ñuy tëddee félicité fii ci suñu waxin ñun ah waaw yow de yonent bi yow rek la say affaire baax ci saar wi mënun nag bi saxaaba yi waxee loolu yàlla wàcc la yudxila al mu'mina wal mu'minat jannatin tajri min taxti al anhaar même yéen sax ci buuñaa bi ngeen bokk ndax yàlla mu ne danañ leen wàcceel tabbal leen àjjana joo xam ne day daw ca suuf ga ay sewnde ah ba yegsi ci fawdan azima loolu imaamu albuxaari rahimahullah nettali na ko ak imaamu muslim ci saxiix ba léegi Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama koo seetlu benn bis mu daal di julli ba ay tànkam fet xam ngeen ku mënoon taxaw ci yàgg ci julli la sallallahu alayhi wa sallam Aïcha mu ne ko waaw yow yàlla wàcce na ci yow inna fatahnaa jéggal na la say bàkkaar tee ngaa noppalu mu ne ko afala akunu abdan shakura kon su boobaa duma duma gërëm duma nekk ku sérieux xanaa duma nekk koo xam damay sant moo tax dooy wax ñu bari ci ñun mbokk yi sérieux wuñu ñu bari ci ñun tey wallahi alazim sérieux wuñu ndax boo gessoo nga xool li la borom bi subhanahu wa taala defal ci ay tawfiq am ñoo maaseel ñu bari te amuñu ko am ñoo xam ne ñoo la mag fuuf te amuñu ko ñoo xam ne ñoo la dàq test si fuuf te xamuñu ko ëpp lay diplôme fopp te amuñu ko ak ak ak yàlla defal la ci tawfiq loo xam ne ñoom ñëpp dañ la caa ñee loolu ñun ñëpp suñu borom defal na ko waaye boo seetloo keroog lañ gën a tayal ah keroog lañ gën a moy keroog lañ gën a mën a xarab ak a jàmbat moo tax alquran mbokk yi day fekk doomu aadama ji feebar mu di ko faj faj ki mooy yu mel nii nit ki bu ko jàngee ci lay dal di yëgaat ndax léeg-léeg xéewali suñu borom yi maanaam nit ki du ko gis inna min shiddati dhuhuri xafa li la jege ba mu ëpp daf doo ko faral di gis kon saar wi noonu la demee borom bi subhanahu wa taala bégal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ci ña nga xamante ni ñoom ñooy ña gëm yàlla ña moo tax Omar ibn al-Khattab radiyallahu an taala anhu radiyallahu anhu daf doon wax ju am solo ci buntab bu fekkente ni doomu aadama bi mi ngi woyafal boppam di suufeel boppam di bàyyi fayantoo ak a rafetal lii la ko yàllay fayee Omar wax ci am solo joo xam ni moom la ñuy dumaa mag te wax jii nañ ko déglu ñun ñépp maanaam yar bi moom la ñuy dumaa mag mag kenn du ko dóoree yar bi ñuy dóoree xale gis nga mag dafa am xeetu karwaas goo xam ne boo nee na ko boo nee ko ko ràll bu yeboo nga dem te nga xam ni yow moom keroog duma nga ko duma yu gën a métti yi ñu duma gone Omar dani maa aaqabta ahadan asa allaha fiik bi misli an tutia allaha tabaraka wa taala fiik nee na ki mooy yàlla ci yow ki def lu bon jëm ci yow mu ne yëgal ni karwaase woo ko karwaase gu ko yeggal suuf lu mel ni nga topp yàlla ci moom waa ji dafa yëkkate lu ñaaw def def jëme ci yow mu ne yow seetal lu rafet lu tolloog lam def wala lu kopp nga nga nga defal ko ko nee na gis nga boo ko defee yëgal ni karwaase nga ko karwaase goo xam ne moo gën a saf ay wax moo gën a saf ay def te wax na dëgg ndax su boobaa doomu aadama li gën a métti ci moom bu dee mag mooy gàcca gàcce moom day faral di rey mag moo tax wolof de gor gor fu mu dee gàccaa ko rey kon laaya jooju mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna nun yàlla fataxnaa laka fatxan mubina ñoo la ubbil ubbigu yaatu googu kon loolu moom moo tënk sulxul xudaybiya ci tënk bu gën a gàtt kon sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ni audu billahi min alsheitan arrajim bismillahi arrahmani arrahim inna fataxna laka fatxan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا laaya yooyu di juróom-ñeenti aaya incha allah mooy nekk sunu bind ci tafsiru suratul fathi nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala an yataqabala minna innahu huwa alsamiu alalim wa an yatuba alayna innahu huwa altawabu rahim yàlla na borom bi subhanahu wa taala nangul ñu ndax moom day mooy aji dégg ji di aji xam ji waaye yàlla nañu jéggal ndax moom mooy jéggalaakoon bi di baalaakoon bi yàlla na borom bi subhanahu wa taala defal nu fatxan mubina defal nu nasran aziza waaye defal ñu tamit imaanan kaamilan wa yaqinan sadiqa borom bi mu ni inna ñun yàlla fataxnaa laka ñoo la defal ak ubbeegoo xam ni fatxan mubiinan ubbeegu fës la ubbeegu leer la goo xam ni amul benn sikk sàkk borom xam-xam yi dañuy wax ni fatxu makka dafa mel ni moo gën a nuru fatxan mubiinan ci sulxul xudaybiya li ko waral mooy ci lañ fatxu makka la ko waral mooy ci la nit ñi dugg fii diinillahi afwaajan li ko waral li ko waral lim ay mbir ñu ne on on sulxul xudaybiya kay moo gën a nekk fatxan mubiinan ndax noonu la ko yàlla waxee te it ni mu ko waxee ni la amee ndax li ko waral mooy sulxul xudaybiya mooy yaay ji jur fatxu makka sulxul xudaybiya moo jur fatxu makka ndax ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siñanteeg yéefar yi ay accord ay pacte yoo xam ni maanaam yéefar yi ci boppam ban doon def ñoom xamuñ ni lay nuri intérêt ca ñoom ay lor la ca ñoom lépp intérêt l'islam la te booba yéefar yi xamuñu ko même jullit ñi xamuñu ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xam moo tax yàlla ci jeexintalu saar wi bi muy yedd ñu gëm yàlla ndax mer gañu meroon ndax yonent bi li mu siñente ndax min babil ishara pour mu leer rek yéefér bu jóge ci yéefér yi ah tuub ñëw dugg ci lislaam yonent bi da koy delloo ay bokkam te jullit bu jóge ci yonent bi ñëw ca yéefér ya yéefér yi sañ nañ koo récupérer téye ko xoolal affaire boobu yow yow mi koy déglu doo xam lii mooy lu mu nuru loolu moom xel yépp dañuy dëppoo ci ni loolu moom je jekkut maanduwul moo tax saxaaba yépp mer ca loola waaye booba yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam na loo xam ni yàlla subhanahu wa taala xam na loo xam ni xamal ko yonent booba gaa yi xamuñu ko booba yonent bi mi ngi calcul moo da nga nekk ak mag muy sa kilifa muy def defin woo xam ni jàpp nga ne yow lii jubut fekk na déedéet yow yaa xàmmeewut lu jub yow ndax da nga di gone booba yonent bi xam na ni sallallahu alayhi wasallam ñii moom yar naa leen yar bu mat boo xam ni ab julit buy murtat naan day génn fii dem ci yéefar ya moom jamono jooju moom loolu amut moom kon loolu moom jërut ñu koy tiit ñun bu ñu amee ku fàq ñëw ci yéen yéefar yi mën ngeen koo téye amul problème parce que yonent bi xam na ni kenn du fàq dem parce que boobu yar bi mokk na yéefar yi yéen bu ngeen amee ku fàq mu ñëw ñun dañ koy delloo parce que yonent bi xam na ni yéefar bu fàq fekk iman moo tàngal sa xol même buñ la delloo see di nga dellu si waat parce que iman du la bàyyi nga toog moom laay wax ne gis nga iman bu nekkee ci sa xol mën na laa def loolu ne léeg-léeg nga gis yenn jëfe saxaaba yi mu di la yéem wallahi mbokk yéeme wut de problème problème mu iman la maanaam iman julit su ko amee lu mënut amut lépp lu doomu aadama war a man rek mën na ko parce que xam ngeen ni iman mooy nekk force ku ngëm yàlla wax naa leen ne xasanul basri da doon wax ni doole yi julit newul ca yaram wa waaye ca xol ba lay nekk doole yi naafiq nekkul ca xol ba waaye ci yaram wa lay nekk kon ndeke da ngay gis saxaaba boo xam ni sa waay subhanallahi alazim bu ñee la nangam ak nangam ak nangam moo ko def nga xool ko sa waay muy bebaru xool ko mel ni Abubakar nga xam ni su waay am cawraat giñ la tuuti ba nga xam ni yow kii boo ko ba ma xëy sa xanaa mu xaw a daanu waaye imaan ji ak ngëm yàlla gis ngeen la mu waxoon keroog xurub ridda mu ni wallahi yéen waa dëkk bi yépp su ngeen toogoo ni du ngeen dem xare man Abubakar ma fa bu dem man kese kooku iman la doon waxee waaye waxee wut ay doole ak ay déedéet iman la doon waxee te xam ngeen ni ab wallahi Abubakar du wallahi caaxaan gis nga lii ma nar a def amul Omar amul Ousmane amul Ali dama ni bu bu ay xaj ñëwoon di ŋànk tànki soxna yonent bi ak ñi ne ci dëkk bi di watat di génn dëkk bi du ma tax a fomm sama yoon wi ma dem bu yeboon ak yéen bu ngeen bëggul a dem ngeen toog ñu def koy kaf mu def ko dëgg mu dugg sol mu bam sa waay génn nar a waru fasam Omar ni ko déedéet léegi bu fekkee toll na la noonu baal ñu dem booba xam nañ ni kii li muy wax lu mu gëm la gis nga ko kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla defal na ko fathan mubinan muy ubbee goo xamante ni ubbee gu rëy la gu leer la gu fës la li yaxfir allahu lak ngir sunu borom jéggal la ma taqaddama min dambik li nga xam ne jot naa jiitu nga def ko ci ay bàkkaar wa ma taaxar ak li nga xam ne defagoo ko allahu akbar lii nag moom lam yasbiq alayhi ahadun min alaalamin la nabiyun mursal wala malakun muqarrab lii moom min xusuusiyaati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam gis nga yonent bi dafa am ay xusuusiyaat aw xeetam am ay xusuusiyaat na benn borom xam-xam bu ci taalif téere bu am solo téere baa ngi tudd alqawlul ahmad fi xasaaisi ummati ahmad wax ju ñu gërëm a ngi ci yi nga xam ni xeetu yonent bi dañ koo jagoo sallallahu alayhi wa sallam mu indi ci yëf yu bari bu yegsee ci yonent bi yi mu jagoo bokk na ca lii li nga xam moom kenn mësu ko cee fekk laa min al awalin wala min al axirin yàlla baal na la say bakkaar yi nga jot a def yépp mu ne aha ñu ne ko ak yi nga defagut mbokk yi ndax ñun xalaat nañ koo xam ne dañ koo wax ni ko yow ab yonent yàlla nga yaa mujj ci yonent yi yaa ci gën ah yaa leen fare kaw yaay seen njiit te yonent yi jiitu yépp dañoo siñanteeg ñoom ni ku la fekkee ku nekk day tekki ndombay tànkam topp sa gannaaw di la tarbiyu loolu la yàlla wax ci yonent bi alayhi salaam suratul aaraf yàlla dafa wax yonent yi dama waxanteeg ñoom ni bu ngeen ko fekkee ah la tuminunna bi la tuminunna bihi wala tansurunna da ngeen ko gëm te da ngeen tekki seeni ndombay tànk dem jàppale ko kooku yàlla tegal ko ci ni ko jéggal naa la say bàkkaar yépp yi nga def ak yi nga def te bu taxawee dana ana axshaakum lillah maa leen gën a ragal yàlla woorkat yépp moo leen dàqa woor naafila kati guddi yi moo leen dàqa naafila gis nga yàlla da ko wa min al layli fa tahajjad naafilatan lak gis nga bokk ci tadabbur quran xoolal aaya jooju naafilatan mu ne laka gis nga naafila yi ngay def yow lay jëriñ yow wa min al layli ci guddi gi fa tahajjad bihi naafilatan lak jugal nga taxaw ay rakka naafilatan naafila laka yow lay ñeel après sa kaw lay këppwaat yow lay jëriñ laka jooju moo lay wax ni gis nga lii ngay def nii lépp après yaa koy jëriñoowaat asa an yabaataka rabbuka maqaman mahmuda loolu yàlla waxoon na ko yonentu saa sallam xam ngeen ci tàmbali bi lislaam qiyaamu layl dafa nekkoon lu saxaaba yi lu waroon ci saxaaba yi ñu doon ko def ginnaaw bi nag bi aaya ja wàccee aliman sa yakunu minkum marda wa axarun yadribu fi l-ardi yabtaghuna min fadlillah faqra ma tayassara min mbir yi daal di nekk loo xamante ni nekkatul fard suñu borom ni ngir ma jéggal la say bàkkaar ma taqaddama min danbik li jiitu wa ma taaxar ak li yegg seegut yent ban bàkkaar la def sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne fi l aalamina kulli fi l aalami kulli axsha lillah wa atqa lillah ha wa abada lillahi subhanahu wa taala moo gën a ragal yàlla moo gën a jub moo gën a moytandiku moo tax kere bi mu séddalee ba noppi waa ji ni ko yonent bi maandu woo dafa mer ba bët yi taa di sotti ay rangoñ mu ni ko man bu ma maanduwul kan mooy maandooti ci kaw suuf ca la may rewoon nag wax waxam jooja ni gis ngeen kii ngeen gis ak ñaawaayam bi ak leelam bi ah ak boppam bu rëy bii ci askanam ci lay génnee ñooñu nga xam dañuy rocceeku ci diine comme nim jaasi di rocceekoo ci barab ñoo ñooy xawaari ji
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ko wa yutimma yàlla mottali nicmatahu ay xéewalam alayka ci yow waaye wa yahdiyaka yàlla gindi la siratan aw yoon woo xam ni mustaqiman wu jub la yàlla daf lay gindi jëmale ci yoon wu jub benn borom xam-xam bu mag day wax ni naka la yonent bi saa sallam gindee ko ba noppi yàlla di ko wax ma gindi la ñu honkay gindeeku ga la ko sunu borom di yokkal ba yonent bi saa bu xëyee rek daraja ja mu amoon ci gindeekoog njub ak mbaax ak nu bu day gën a yokk mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li wolof yi naan bala mu ni nux nux ni war war xoolal lim daj oxoj xoolal coono yi mu daj muy jur ay doom yu góor ñuy faatu ay doom yu jigéen faatu ñu fekk ko muy julli ñu jël sébirit ah nga xam ni neefare yaag butit yaag salte yaag ca gëléem gañ fees ba pare ñu ne ko ko bàcc ca kawam ah mu dem taif ñu dóor ko ba deret ji doon rogalaat ci moom moo kole dàll weeg tànk bi fell ba ñëm uxut gaañ ko ci oom bi ca uxut reyal ko Hamza nga xam ni mitit wam ca am jéggi na dayo ah rey juróom-ñaar fukki saxaabaam di ay mokk fóorëy alquran ba mu toog weer saa bu julee di witir di ñaan yàlla alak ña ko def muy Ra'al ak Usay Usay ak ñeneen kuréel yi nga xam ne ñoo def jëf ja allahu akbar xoolu yëf yi ni mu méttee mbokk yi ndax balaa mu ni nux nux ni war war affaire yi day saf sab xéwali doog a yegsi gis nga saa bu xéwali yegsee te amoo benn jafe-jafe boo ma sa jaar bu yeboo nga tiit ci sa bopp saa bu xéewal yi saxee te yaa ngi mooy yàlla tiital ci sa bopp waaye nag saa bu méttee ba pare doog a neex loola day tax sax nga mën a téye neexit bi moo tax yonent bi alayhi gis moo ak saxaaba yépp te loolu mooy sunnatullahi ala alxalqi ajmain xaasat alladina amanu mooy day jafe muy metti soxnaam si mu gën a fonk faatu bàyyam bi ko doon défendre faatu bàyyi taxam bi ko doon jàppale faatu saxaabaam yi doon waxtu alquran ja ñu rey leen bëñam bi ñu damm ko oomam bi ñu gaañ ko ci doom yu góoram yi yépp faatu yu jigéen ya mu suul ci ñaar subhanallah xoolal bokk yi affaire yi nattu yi ni mu méttee xoolal affaire yi ni mu dajaloo ci yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax ibn alqayim di wax ni te waxoon naa ko ci bind bii baase ca jeexintalu suratul ahqaaf fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastaajil lahum mu ne yow mi nga xamante ni yaa ka yaa ka doyadi te ñàkk ay décision te gaaw a découragé lan nga xam ci yoon woo xam ni aadama daj na ca lii nuux daj ca lii idrisa daj ca lii yaquba jooy ca ba jooyee fulu ay bëtam ba gis ba leeratut ndax dafa teqalikoo ak doom joo xam da koo sopp lool ba agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon faw mu jafe mbokk yi doog a neex jafe-jafe yi nag ñun bu amee ndeysaan da nga di andeysaan diw di ni ma ko yërëmee fekk moom moo la war a wax andeysaan ñun loolu lañ xamut ñun léeg-léeg dañuy fekk mbir mu war a jaaxaan ñu defeen ko yonent yàlla bi nee na inna allaha ida ahabba qawman ibtalaahu yàlla bu bëggee ay nit daf leen di nattu fa man radiya falahu rida man saxta falahu saxam muy ay ndiwaat beneen xadis mu ne yàlla bu nammee jàmm ci waa kër genn waa kër dafay jiital ci ñoom ay nattu man yurid allahu bi xayran yusib minhu ku yàlla namm ci yow yiw faw mu mosal la ay nattu xoolal ayuba alayhi salaam di ab yonent yàlla tagg ko awaa dellukat bu mag ci yàllaa ngoog allahu akbar xoolal googu tagg bàyyi koo ci yàlla natt boo xam ni diire na fukki at ak juróom-ñett alal ja yàqu dëkkuwaay ya yàqu jabar ya tas ba mu des benn yaram wi nag di feebar feebar boo xam nelaw sax mënatu ko par guddi waaye yàlla nag mu ne inna wajadnaahu sabiran niamal abdu ay jaam bu baax jaam bu baax a ngi waay boobu shahada la goo xamante ni beneen diplôme nit ki waratu koo soxla ci kaw suuf ak fu mu mën a bàyyi koo nag
borom bi subhanahu wa taala mu ni wa yahdiyaka yàlla dana la gindi siratan mustaqima yoon woo xam ne wu jub la mooy sirat alladina anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim wala dalin sunu borom mu ne wa yansuraka allahu yàlla nee na danaa la dimbali waaye nasran aziza ndimbal loo xamante ni lu foor lay doon waaye ndimbal loo xamante ni lu tedd lay doon bi maana borom bi subhanahu wa taala saxal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dinaa la gindi waaye ci sababu toroxlu gi ngay toroxlu ak góorgóorlu gi ngay góorgóorlu dana tax yàlla subhanahu wa taala dana la jàppale moo tax borom xam-xam di wax ni ma tawaadaa abdun lillah illa rafaahu llahu te loolu xadis la yonent bi saa sallam mu ni ab jaam day du wàcce boppam mukk lu dul yàllaa koy yëkkati yonent bi gis ngeen sulxul xudaybiya ni mu wàccee boppam waaye yonent bi li muy def nii mu ni gis nga ñii de tey luñ ma laaj te dog mbokk néew ca mooy yàlla néew ca ma jox leen ko bu soobee yàlla loolu nag moo mer la woon saxaaba ya parce que ñoom li yonent bi signé lépp lan jàpp mooy seen seen ab seen seen ab jël moo cay nekk seen ab jël moo tam nekk waaye yàlla mu ni fa alima ma lam taalamu fa jaala min duni dalika fathan qariba fa alima ma lam taalamu yàlla xam ne lu ngeen xamul xamal na yonent bi lu ngeen xamul moo tax yéen ngeen di férférekat
gis nga yonent bi ko amoon ak dal la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu mësul am ci saxaaba yi keroog la am yonent bi ne hee jug leen ngeen watu ñu dem saxaaba yi ne këj xool fële kenn faalewu ko loolu mësul am bu ngeen fàttalikoo démb ci suñu barki démb suñu bind bi waxoon naa leen nii gis nga kilifa saa boo gisee ci sa njaboot loo mësul gis rek teeyal saa boo gisee ci sa njaboot koo xam ne yaa ko daan gëdd di ko harcelé nga wax rek mu riposté bu dee yarkat dëgg nga da ngay arrière reculer bu la avance ak loo ko yilif yilif reculer am na lu xew mooy misaal ma leen joxoon waa ji nee na boo duggee ci surga bi ci tool yi ñëpp ku nekk di ragal la gaaw ki jël recevoir bi ki jël nangam nga dugg wax ak kenn rek mu wiccax lay loxo mu ni arrière reculer mu ni booy dof dof lu ñu lay sot sotoo wax na dëgg de gis nga kilifa moo tax damay wax ne alquran lépp li ci nit ki mën a jàng lépp lépp lépp lu mën a doon ndax yonent bi alayhi salaam bi loolu amee mu ni sahaaba yi def leen sahaaba yi defuñu automatiquement jaaxle dikkal na ko waaye forcé wut gis nga bu forcé woon day ñàkk soxnaam ummu salama moo ko woo ci pet ni ko gis nga ñii dañoo mer te liñ merit ñoo yay ndax yàlla moo tax ñu mer akub yonenteem xam nga nooy def te gis nga xadis boobu nga xam ne xam du ma waxuma waruma wax sax xadis shaawiruhunna wa xaalifuhunna diisoo leen ak jigéen ñi waaye bu ñu paree lañ wax sànni leen ko fële def la ngeen nar xoolal wax yu bon yooyu loolu xanaa mooy doyadal jigéen ci lislaam xaj loolu du xadis sax ay kàcc la
yonent bi diisoog ummu salama ummu salama ni ko gis nga gars yi dañoo mer te yàlla moo tax ñu mer waaye nag xam naa ni ñoom bëgguñoo juuyoog yow léegi da ngay def loo xam day nuru lu leen di tiital wool sa watkat bi mu wat la léegi nga jàpp sa mor sa njàmbur naan sam ndox war sa gëléem dem sa yoon gis nga bi yonent bi defee la ko ndaw sa digal rek saxaaba yi ni ah ba du yonent bi dafa mer keroog am na ñoo xam dañoo dagg seen bopp morom di wat ba dagg nit ki ndax yàkkamti xoolal problème boo xam ni mën naa tukkal àddina jigéen rek la ko ci loo xam ne matul sax 10 minutes watul defal li ngay def nga génn dem sa yoon yow bi ko saxaaba yi gisee ñu ne ah kon yonent bi daa mer te bëgguñu mer ndax ñoom xam nañ ni bu yonent bi mer yàlla di ko merle te boo musibaam ñu ci saasa ñu def la leen yonent bi santoon sallallahu alayhi wa sallam moo tax gis nga yu mel noonu dafa am solo trop trop trop léeg-léeg nit ki yenn jaaxle yi bu ci tolloo mu diisoo moo tax diisoo lu am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon suufeel gu mu suufeeloon boppam ak nangu yu bari yoo xamante ni ren doo dugg aji foofu nag fa la saxaaba yëpp meree moom
Amar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daal di ñëw ni yonent bi ñun xanaa dañoo nekkatu ci dëgg
mu ne ko ah kay ci dëgg lañ nekk kay waaye yàlla moo ma moo ma yónni xamal ni yàlla ma yónni Omar dina ma dem dem dem mënatu ma ko muñ ma dikk mu ne ko yow xanaa ñun li nekk da dëgg léegi mu ne ko Omar ci dëgg la nekk waaye xamal ni yàllaa ma yónni
Omar dina ma dem ñaar ñett yoon ñëwaat ma ne ko léegi yow lan moo tax kon ñoo nekk ci dëgg affaire yi doyadi yi nga di ko nangu yonent bi ni ma ne ko Omar yàlla moo ma yónni Omar nee na ma ba ko fa dem ci Aboubacar ni ko yow gis nga yonent bi li mu def wax a wax a wax ba àggal nee na la ma wax yonent bi laa ko wax yonent bi Aboubacar tontu ko la ko te gisante wuñ nee na Aboubacar ni ko hé Omar tëjal sa gémmiñ xam nga Omar nag daf ko respecté woon la Aboubacar ku ko respecté woon la nag gis nga Omar daanaka xaw tuuti kon rek liñ naan koo gis rek am na ko man ci moom dara Omar daanaka Aboubacar a mënoon ci moom dara te wax ji du bari lu ko waral mooy Omar dafa xamoon ni Aboubacar gis nga Omar dem na ba naan yaa laytani kuntu shaaratan fi sadri Aboubacar aka neexoon ma suppali ku nekk kawar yàlla saxal ma ci dëndu Aboubacar nee na loolu rek neex na ma man xam ngeen kooku fonk na ko trop ni ko Omar te jël sa gémmiñ gi te nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla moo ko yónni kon lu mu def noonu la Omar nee na ci laa doog a amuk dal gis nga bi sulxul xudaybiya jàllee Omar nee na tegale naa ay at lu ëpp vingt ans di jéggalu yàlla saax-saaxee googu ma doon saax-saaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mbokk yi li mu def daanaka dara niw ci waaye nee na lu mat vingt et quelque muy jéggalu saax-saaxe gi mu doon saax-saaxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci ngay xam ne ñooñu ñooy assaabiquun assaabiquun te it wa sa yakunuuna almuqarrabuuna insha allah muy saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain moo damay wax ni kuy tëkkale sa waxuma la sax maanaam jël saxaaba yi leen tëkkaleeg ay diw ak diw ak diw ak diw wallahi da nga xamut yow da nga waruñu la sax a meer dañ la war a yërëm parce que day wane ne yow xamoo dara dara dara maanaam innocent bu jàngut dara dara nga ndax saxaaba yi yàlla daf leen a tàggat melal leen noo xam ni fii ci kaw suuf bu soobee yàlla ci ginnaaw saxaaba ya ci kaw suuf ca la ko jiitu bu soobee yàlla nit mësu fee jaar ku ni mel ku mel ni ñoom bu yonent yi jàllee ba yowmal qiyaamati ñu mel ni ñoom dootu ñëwati insha allah borom bi subhanahu wa taala mu ni ah wa yansuraka allahu yàlla dana la dimbali waaye nasran azizan dimbal loo xam ne lu foor lay doon lu tedd lu màgg sunu borom ni huwa alladi yàlla mu màgg mi mooy ki nga xam ni anzala moo wàcce assakinata ak dal fi qulubi almuminina ci xolub ñi gëm yàlla li yazdaadu ngir ñu dolleeku imaanan ak ngëm maa imaanihim mu dolleeku ci seen ngëm ga keroog sulxul xudaybiya imam qataada bu ne yàlla moo wàcce woon ak dal ca saxaaba ya nga xam ne nanguloon nañ yàlla akub yonenteem ba nee nañ saxaaba ya bañ fa jógee kenn ku ci nekk da nga sentir lu tabbi ci sa xol ci dolleeku ngëm moo tax ulamaul aqida ñuy wax ci buntu aqida ku mel ni imaamul buxaari rahimahullah istadalla bi hadihi al aya anna al imana yazidu wa yanqus gis nga ñuy jàngale aqida aaya jii ci aaya ji gën a siiw ju ñuy tegtaloo la bokk di wane ne iman day yokk day wàññeeku sa jaamu yàlla yi nu mu yokkoo te sell yëgal ni sa imaan a ngi yokk boo ko na teg boo ko natu sa jaamu yàlla yi nu mu wàññeekoo sa imaan mi ngi rës boo ko yëgeeg boo ko yëgul moo tax borom risaala mu teg anal imaan yazidu wa yanqus yazidu bi taa wa yanqusu bil maasiya imaan day yokk di wàññeeku day yokk ci topp yi di wàññeeku ci moy yi wuuteeg loolu moo atazila ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoom dañuy wax ne al imaanu la yazidu wala yanqus imaan du yokk du wàññeeku ñële moom gën a sànneeku ñëpp naan imaanu kenn ku ne ci ñun ak imaanu jibril doo nga tolloo benn ëppul morom ma ñee ñoom xaw nañoo jege dëgg ndax ñoom dañ imaan yazidu wala yanqus ndax yàlla man li yes daada te waxul wa yanqus moo tax borom xam-xame aqida yi dañ leen a tontu ni leen xel nangu na ni lépp loo xam ni qaabilatun li ziyaada qaabilatun li nuqsaan même buñ ko tudd lépp loo xam ni nangu naa yokk rek nangu naa wàññeeku fii ci àddina moom te iman ca lay bokk xam nga ni ku dem bay jàpp ni imaanu jibril ak sa iman ñoo tolloo ah imaanul kafaratul fasaqatul fajara ñoo imaanu jibril ñoo tolloo xam nga loolu wax dëgg yàlla ku jàngul dara te amum xel sax buñ la ko waxee da nga da nga da sa xel mi sax day teey loolu mënta nekk kon iman day dolleeku di wàññeeku moo tax lépp looy jàmbat ci sa bopp ba nga naan iman ji daa wàcc mën ngaa faj sa bopp gis nga coow li coow li xaar ma laaj di wax xaar ma laaj masalam yeeg nu may def ak yooyu yëpp daanaka ay guddal jël la rek kenn ku ca nekk li nga daan def te defatoo ko moo wàññi yëf yi li nga daawut def te nga commencé koo def moo yokk yëf yi mu jeex consultation bu gaaw baa nga ku ne mën nga koo defal sa bopp yi ci des yëpp daanaka guddal jël la ak da am jot rek ak wut ku la dimbalee wut wéttal waaye yàlla mu ni maa wàcce ak dal ci xolub ñi gëm yàlla li yazdaadu imaanan maa imaanihim ngir ñu dolleeku imaan ca imaan ji nga xam ne moo fa newoon ah moo tax Xusayfa doon wax ni ñun de dañoo topp yonent bi am imaan am leer alquran ñëw dolli imaan dolli leer mu nekk nuurun ala nuur yahdi llahu li nuurihi man yacha sunu borom mu ni walillaahi ñeel na yàlla junuudu samawaati soldaari asamaan yi wal ardi ak suuf ñépp ay soldaaram lañ yàlla li muy junj ci aay ji mooy su ko neexoon soldaaram yooyu lay jox ndigal ni leen bu yonent bi dem badar bu mu dem oxot bu mu dem xandaq bu mu dem xaybar bu mu dem muraysa bu mu dem xunayn waaye na toog fi mu toog soldaari yàlla yi dinañ régler yépp waaye su boobaa day yomb ba mu ëpp te su yombee ba mu ëpp qaayida ku la nar ta fay du la liggéeyloo day dàqu kon yàlla nam ma fay ñi gëm yàlla ak defar leen moo tax mu liggéeyloo leen ngir fay leen waaye yàlla kàttanam romb na ci jël ay soldaaram ñu régler mbir yi yépp te it nag wax naa leen ko ci suñu fàttali barki dem mën leen iqaamatul xujja ak am solo ci nit ki gis nga firaawun wax naa leen ko saay-saay la ku bon la yàlla mën a yabal léegi ab yamb mbaa ab yoo léegi mu réglé ay mbiram affaire bi jeex déedéet loolu nit mooy defee waaye yàlla du defee noonu yàlla nee na fira Moussa demal boo demee waxal wax ju nooy ndax mu mën a waaru wal te yàlla xam na ni même bu waxeelu nooy du waaru du fàttaliku waaye nag li nga war a def toujours def ko yow tey iqaamatul xujja kii mbugal faw mu def ko moo tax ci lislaam ji ma ni la comme ni ñuy faral def diw nangam di wax ay wax mosoo ko waar mosoo ko fàttali mosoo ko ziyaar mosoo ko ñaanal dama ne yooyu yaa ngi yaa ngi bàkkaar li nga def amul njëriñ kenn santu la ko diw sàngam saay saay la diw ko yow firaw naa ko gën a saay saay te yàlla digalul waa kër Moussa ñu toog leen fii naan firaw naa saay saay moo ko bon moo ko bandi après lu muy jëriñ amul benn njëriñ xam nga lan la julli nga ñaanal ko mbaa nga waar ko mbaa nga ziyaara ji ko mbaa nga fàttali ko mbaa nga wax ak moom wax ju nooy faw nga def li ñu tuddi iqamatul xujja moo tax nag atte ci lislaam diw yéefar la ak diw nangam donte ñun du suñu rôle borom xam-xam yi bala ñu koy def dañuy def li ñuy tuddee iqamatul xujja te iqamatul xujja du ku ne koy def de ah yow yaay jóge fii rek sa waay dem def na defal naa ko iqamatul xujja mu dëgër bopp yow ku la wax mën ngaa def iqamatul xujja ba nga naa mu dëgër bopp nga bare nga ni kii sa waay léegi yéefar la atte naa ko yéefar la yow kenn attewu la kenn atteloowu la muy benn ñaareel moom mooy yow sa iqamatul xujja boo yow yow sa bopp sax mënoo ko defet moo tax gis nga toujours mbokk yi nañ bàyyi di jaawale yu bokkul oto ab safoor a koy dawal ah oto safoor a koy dawal de oto safoor a koy dawal saa boo bëggee nag jëlub oto na nga ne yow mi nekkul safoor di nga ko dawal yaa ngi bëgg a indi njaaxum borom xam-xam yi loolu la ñuy jariñ léeg-léeg tamit mba mbonaayuk waaja yow bu mu la yitteel benn waaye dafa toog ci kanamu benn borom xam-xam di jàngale mu ne xajjaj ni mu say-sayee ni mu bonee di di lim di teg di lim di teg waa ji di ko déglu muy lim di teg ba mu yàgg mu ne ko waa léegi li nga wax lépp la ban njariñ la la ñu amal ñun amaluñu benn njariñ fi mu nekk nii tey gis nga jëw gii ngay jëw xajjaaj yaa ngi koy jëw mu ne ko gis nga jëw gii ngay jëw xajjaaj gis nga xajjaaj bu yeggee ci kanamu suñu borom lam defoon ni mu koy sonalee na mu ko dara sonalee yow baat yii nga wax nu toll noonu mën na la koo sonalee yow parce que li nga xam benn njariñ doo borom xam-xam doo dara te it léeg-léeg mbir yi mën ngaa foog lu amut li ngay foog te amut mooy mën ngaa juger nit ki defe ne ci kufru la dee ci nifaaq ji la dee ci pas-pas bon bi la dee fekk dee wu ca de lu mat a téye ngoog gis nga cheikhana docteur Mouhamed Ahmad Lo ci taqrisul ashxaas bi muy nettali lenn ci sufiyanke yi boo demee te loolu sax am nañu ko ci jox ibnu taymiya ko ci jiitu ci majmuatul fatawa yeneen i borom yi xam-xam wax nañ ci seen téere am na ñu bari ñoo xam ni balaa ñoo faatu tuub nañ dellu gannaaw parce parce yu bon yu salte yu nëpp lañ wasaare ci àddina bi waaye nag yàlla def na tuub nañ dellu gannaaw defe naa mos naa leen ko nettali ci xajjaaj te man waxam jooju day tax mbirum xajjaaj man du ma ci bëgg a sori gis nga xajjaaj bi mu demee ba toll ci sukuraat dane yàlla gis nga addina bi yépp xam nañ ne damaa bon moo tax ñoom ñépp nee nañ dooma baal yàlla njooy leen nga jéggal ma ndax seen yaakaar tas xoolal xoolal jooju wax yow doo man daal affaire bi daal daf yéem na ma trop xoolal loolu xam nga borom bi sa tala ku bari yërmande la ku bari yërmande la te waxam jooju wax ji daa foor de wax ji dafa foor lool moog waa ji jëloon boo xam ne taal leen ma def ma doomu taal sànni ma ca géej gi def ma lii def ma laa yàlla dekkal ko ni ko yow suwaay li ngay def nii pour lan mu ne xanaa xam ni soo ma jàppee rek tey ma dee sunu borom ni ko jéggal naa la tàbbeel àjjana moo tax gis nga mbirum jéggal mbugal yooyu yow daal jaamul yàlla booy waare waareel jugement bàyyi ko borom xam-xam yi te xam ne ñoom moom sa jëleef iqamatul xujja ba noppi joxeeb àtte borom bi subhanahu wa taala mu ni yàlla moom soldari asamaan yeeg suuf yi wa kaana allahu yàlla de dafa nekk musul di dañ di nekkit aliman di ko xam waaye xakiman di ko xereñ bi yàlla yabal yonent bi saa sallam mu dem sulxul xuday bi ñu xamee du dugg màkk accord yi mu koy si ñu daal di koy nangu li gënoon a metti saxaaba ya bokk na ca it nag ah yonent bi daa gént ab gént ñoom seen yoon woowu ñu dugg seen maam seen dem tukki ba daal la tadxulunna al masjid al xaraama insha allahu aminin omar nee na bi ma wax ak yonent bi ma yàggal ma dikk ni ko yow yow yow sax est ce que du yaa ñu waxoon la tadxulunna al masjid al xaraam moom maam moom lu xel mi daj rek mu wax ko parce que moom gisut leen lu dul dugg yonent bi ne ko dama laa waxoon ren gis nga de xam nga dëgg la moo ko waxoon ni ko di ngeen dugg la tadxulunna al masjid al xaraam insha allahu aminin di ngeen dugg la yàlla wax su ngeen dugg da ngeen am sécurité kenn du leen baale muhalliqiina ruusakum ñii dañuy watu wa muqassirina ñii wa dañuy wàññi nañ war a def yépp alquran wax na ko yonent bi ni ko maa la waxoon ren lay doon Omar ni daal di tekk xam ne waxu ko ren parce que di ngeen dugg rek la ko waxoon moom nag xëy na moom moo jàppee di ngeen dugg ja ren la moo tax gis nga teey lu am solo la borom bi subhanahu wa taala mu ni ku xereñ la ku xam la moom sunu borom ndax lépp lu muy def rek mooy du xikmatin baaliga moom sunu borom sunu borom mu ni li yudxila almuminin sunu borom subhanahu wa taala daal di dugal dugal almuminina ñi gëm yàlla ña walmuminat ñi gëm yàlla ci jigéen ña jannaatin ay aljana yoo xam ni ay tool yoo xam ni ay dër yoo xam ni ay dëkkuwaay yoo xam ni tajiri day daw min taxtiha ca suuf ga al anhaaru ay sewnde dex ak meew dex ak lem dex ak soow dex ak sàngara ah sunu borom mu ni xaalidina fiha dañ fay sax dàkk amatul génn wa yukaffira anhum sayiatihim yàlla mu ni ma baal leen jéggal leen lul ma sa def ci lu ñaaw wa kaana allahu yàlla mësul di dañ di nekk te du dañ di nekkit ah wa kaana nekk na zalika jëf jooju inda allahi fa yàlla fawzan aziman di texe gu rëy allahu akbar moo tax bi yonent bi sahaaba yi ni ko ñu ngi lay ndokkeel ci jéggal gi la yàlla jéggal waaye ñun gisuñ suñu wàll di ci la aaya ji wàcc yàlla tàbbal ñi gëm yàlla àjjana joo xam tajri min taxte al anhaar wa yukaffira anhum sayiatihim ma jéggal leen seen i bàkkaar ndax bàkkaar doo ko duggaalee àjjana laago doo ko duggaalee àjjana ñaawaay doo ko duggaalee àjjana feebar doo ko duggaalee àjjana maanaam àjjana moom yu soof soofaan yépp yi nga xam ay nattu la woon ci kaw suuf benn doo ko fa duggaale lépp loo xam ni ayib laak sikk lépp loo xam ne diis diis laak coono yàlla dala koy teggil ba mu set nga doog a tàbbi biir aljana moo tax mbokk yi di fàttali ko aayaat yu mel nii di ko nafar baax na de mën naa jàjj de loo yéet yootu ci ay xéwal bu taxawee pegg aljana rek seey dootoo ko gisati xéwal goo yore laax boo jubee buntu aljana nga ne ni rek xol gi affaire bi seey na parce que mënut yegg foofu borom bi waajal na ci ay xeeti berndeel loo xam ni jaam bi koy xalaat lépp lu dul lu ñuy toppee yàlla luy soof lay doon ci moom wallahi moo tax su fekkee yegg nga ci daraja joojee tashtaqu ila aljanna léegi nag da ngay namm sax ajana yow da ngay namm ajjana parce que mboolem lu dox diggante nit keeg mu jaamu sunu borom loola fulal ko ba mu junni junni yoon moom la yàlla waajal ca ajana léegi daal affaire bu ngeen bëggee noppalu lakum fiha ma tashtahihi al anfus lu bakkan bëgg mi ngi fi wa talazul aayun lu neex bët mi ngi fi jisaan bi maa kaanu yaamaluun damaa kontaan ci yéen lu ngeen def tey baax na gis nga de wala najziyannahum ajrahum dinaa leen fay tey bi ahsani maa kaanu yaamaluun lu gën a rafet la ngeen doon jëf salaamun aleykum tey ngeen am jàmm yéen ñëpp lu xew mu ni bi maa sawartum ndax da ngeen doon muñ muñ mooy yàlla moo tax nga tàbbi fii muñ a topp moo tax nga dugg fi gis nga de araado itam ndax kontaan ngeen ñu ne waaw yow suñu borom nun kay kontaan na maanaam ajana ci boppam yàlla misaal na ko ci xeetu misaal bu ne gis ngeen ci suratu muhammad mathalul jannati allati waida almuttaqun mu ndax yéen xalaat ngeen misaalam ajana ji nga xam ni moom laa dig ñi gëm yàlla gis nga fële muy ah ay aj ay sewnde ay dex day daw ca suufam lekk ga sax dàkk amul rak kuluha daim wa zilluha keppaar ga amut naaj amul nañ puus suñ basan gi puus fee ndax naaj bi commencé na ñëw déedéet wa zilluha keppaar ga day sax dàkk tilka oquba alladina taqaw yàlla mu ni fii laa jëme ñi ma ragal de wa oquba alkafirina annaar matalul jannati lati waida almuttaquun fiiha bu ngeen demee am na fa mu ne anhaaru min ma bu ngeen demee anhaaru min laban min asalin musaffa min xamrin lazatin lisharibin maanaam dafa mel ni koo xam ni yow da lay xemem loo ba yow lépp loo jàppoon rek pare nga pour ni ko yel baa ndig bàyyi ngir xéewal yim lay waajalal moo tax saxaaba ya ñu ñu ñu déggoon lañ ay wax gis nga bu leen borom bi soo taala masaana melal ajana ba noppi da ngay gis kenn dootu soxlaate dara lu tut la muy jumtukaayoo pour am ajana moo tax seen dund ñu mel nin mel dëgg la nag ya sabab ñu mel nin mel am na yoo xam ne ñun mënuñu koo am yu mel ni xëy di gis yonent bi yu mel ni xëy alxuraan di wàcc waaye gis nga ya ca des ñoo ko bokk yem la de ñoo ci bokk yem ay xol lan yoroon ñu yor ay xol ñu yoru bëgg ñun ñu amuk bëgg ñu amuk tiit ñu amuk tiit ñu xemem ñu xemem ñoo ko bokk la de dafa fekk ne xëy na am nañ yuñ jagoo yoo xam ne ñun bokkuñ ca waaye nag du tee nit ki bëgg lu baax moom bëgg na lu baax borom bi subhanahu wa taala mu ni ma jéggal leen seeni bàkkaar bu ngeen tàbbee biir aljanna ajjana kenn du fa tàbbaalee bàkkaar maanaam ku yàlla gërëmut du fa dugg moo tax bi waa ajjana ne waaw waa ajjana ñoo ne yàlla mu ndax yàlla kontaan ngeen kontaan nga yowit suñu borom moo ni ajjana yéen waa kontaan ngeen ñu ni ñun waaw kontaan nañ yàlla lépp kay def nga lépp lépp kay defar nga ko waa ajjana ni waat waa yàlla yow ndax kontaan nga yàlla mu ni su ma kontaanul woon du ngeen dugg fii tey allahu akbar su ma kontaanul woon du ngeen dugg fii in lam arda ankum ma adxaltukum jannati su ma kontaanul woon tey du ma leen dugal ci biir ajana ci sunu borom ni wa kaana dalika inda allahi fawdan azima loolu day ah texe gu rëy a rëy a rëy la goo xam ni fa yàlla yàlla na borom bi defal na ko subhanahu wa taala sunu borom ni wa yuadiba mu mbugal nag almunafiqina naafiq yu góor yi wal munafiqaati ak naafiq yu jigéen yi aaya ji ak jëkko nuru ca ahzab day wane ni naafiq ni mu amee woon ay góor noonu la amee naafiq yu jigéen ñu bari bu ñu nee naafiq dañu jàpp góor ñaa ne koy naafiq fekk déedéet seytaane su góor seytaane su jigéen naafiq bu góor naafiq bu jigéen gëm yàlla bu góor gëm yàlla bu jigéen yéefar bu góor yéefar bu jigéen xam ngeen ni xam nga ni boo muy tuut moom jabari naafiq moom jabari naafiq xam nga ni ñu ceeb daanaka jigéen moom leen nekk si kim geesu yóbbal lépp li jëkkëram di doon lay doon moo tax ñu bëgg jigéen bu borom kër mu tànn ku baax gis nga ni peinture gaawee soppi miir noonu la góor gaawee ci soppi jigéen moo tax daa feqee tamit ñu amoon ay soxna donte du ñëpp nag la seeni soxna yàqu woon bonoon déedéet am na ñoo xam ne ñu gëm yàlla te dëgër la ñu amoon naafeq yu góor yi ak naafeq yu jigéen yi sunu borom ni ma mbugal leen wal mushrikina bokkaalekat yàlla yu góor yi wal mushrikaati ak bokkaalekat yàlla yu jigéen yi azzannina billah ñooñee nga xam ne ñoom dañuy njortu ci yàlla zanna saw i njortu bu bon ñii de bu soobee yàlla fii la leen di yàlla y seetaan ba ñu faagaagal leen gis nga waa màkk ak ñii bu ñu dajeeg umul qura li ko wër sa waaye dañ leen dañ leen def loo xam ne di wax ay wax ñooñu yàlla mu ne dañuy njortu njortu bu bon ci yàlla ndax la ñuy njortu ñoo gën a xam ne yàlla du ko def subhanahu wa taala déedéet moo tax keroog ba yonent bi ca Badar dañuy yàlla gis nga boo seetaanee waa Badar bañ gañi leen moom ku lay jaamoo dul desati ci kaw suuf ndax fi ne ñi lay jaamu ñëpp a ngi loolu la waxoon Badar te wax na dëgg saxaaba yi ñoo génnoon mu ne ko ñi lay fi ne kaw suuf ñi la fiy jaamu dong nga nekk nii fi ne boo leen seetaanee ñu gañ leen mooy dootul la jaamooti ca la ko Abu Bakar di waxee ne ko bu yeboo nga pare te nga xam ni li ngay ñaan yàlla dana ko nangu bu yeboo nga bàyyi ah wàcce sa loxo yi te it noonu la amee fekk aaya ja wàcc na sa yuhzamul jamu wa yuwalluuna dubur borom bi subhanahu wa taala mu ne ñooñu nga xam ni dañuy njoortu ci yàlla njoortu bu bon ah di waxal yàlla loo xamante ni amut moo tax borom bi di wax ni alayhim daairatu sawi wa ghadiba allahu alayhim wa laana wa laanahum ci weneen saar ñooñu nga xam dañuy njoortu njoortu bu bon ci yàlla loola ñuy njortu ci seen kaw lay këpp te yàlla jéppi na leen mere na leen rëbb na leen sunu borom mu ni ñi nga xam ne dañuy njortu ci yàlla njortu bu bon alayhim yàlla mooy dana këpp ci seen kaw daairatu saw i wërngalab njortu bu bon boobu nga xam ne moom la ñuy njortu ci yàlla loola ca seen kaw la ko yàlla këpp wa ghadiba allahu alayhim yàlla mu ni mer naa ci ñoom wa laanahum rëbb naa leen wa aadda lahum waajal naa leen jahannam sawara jahannam wa saat bon na masiran seen mujjantal abdourahman ibn nasir asaadi mi tas rek si aay ji dafa wax ni ah lii de kon de tiitlu na lool te ratlu mu ni xoolal ñett yi leen suñ borom booleel yàlla mer na ci ñoom te meram suñ borom xajul ci jaam mer ba rek bu ca yemoon dafa doy mu ni rëbb na leen te am rëbbam musibay neen la rëbb ak mer fu ñu dajee mbugalay ñëw mu ni moo waajal leen la nga xam mooy jahannam wa saat mu ni bon na masiran foofa nga xam ni fa lañ nar a mujj yàlla na borom bi subhanahu wa taala boo lañ ci musal sunu borom mu ni walillahi ñeel na yàlla junuudu samawaati soldaari asamaan yépp wal ardi ak suuf yi comme ni mu ko waxee woon sànq daanaka li tawkiid ñu ngi koy feddliwaat ngir ki gëm yàlla mu gën a am confiance ci ni yàlla moo yore ndimbal waaye moo yore doole asamaan ak suuf te it xam ngeen ni comme ni ñu ko waxee woon yàlla lu ne man ala xam ngeen ba dara malaaka yi ñëwoon xare dañoo mëntoon di wàccaat malaaka yi ñëwoon nga xam ne ñoom am nañ doole kenn du leen gis xam nga yow koy xeexal te gisoo ko ah bu lay joxañ daanaka ngay dee yow te benn malaaka rek xajut ci mbooloo mooma yépp ñu ñëwoon badar mënu ñëwoon a wàcc at mu jot saa bu ñuy xeex ohon kay waaye yàlla day bàyyil jullit ñu ñu defal seen bopp te it nag léeg-léeg yenn genn bëgg lu yomb gi baaxut de est ce que xam nga ni saxaaba yi mënoon nañ di ñaan yàlla yonent bi waxal yàlla na wàcce waat malaaka yi ñëw tey dimbali ñu waaye doo fekk fenn foo xam ne saxaaba ya ñi ngi yaakaar loolu la badr wala uhud wala beneen wala beneen amul benn xare booy dem ñu naan saxaaba ya dañ faa nekkoon naan yonent bi ñaanal yàlla malaaka yi ñëwoon badar dellu siwaat déedéet seeni jaase la ñuy daas ba mu ñëw taxaw fas yéenee reye tàbbal kañ rey sawara wala ñu dee dem tàbbi àjjana mu jeex moo tax loolu la yàlla tuddee ci suratu tawba ixdal xusnayayn ixdal xusnayayn mooy gañe sab noonu jël màng nga dem sa kër ñibbi wala mu rey la nga dem tàbbi àjjana bu am baax na ixdal xusnayayn id yaidukum allahu ixdal xusn ah ah hal tarabasuuna bina illa ixdal xusnayayni wa naxnu natarabasu bikum allahu akbar gis nga gars yi ñoom ñu ngi séentu ci ñun li ñuy tuddee ixdal xusnayayn benn bi mooy gañe leen nangu seen a mànga dem suñu yoon wa illa xeex du am xeex sax du noonu la ko borom xam-xam waxee xeex du am mooy la nga xamante nii moom la julli ña defoon ca Badar ca commencement ba ndax lañ bëggoon mooy bu ñu kojee Abu Sufyaan ak màng ma dañuy nangu alal ja dem seen yoon far yàlla def alal ja rëcc leen borom bi subhanahu wa taala mu ni maa ngi leen di ixdal xusnayayn ñaar yi moom faw ngeen am ci benn waaye ñoom julli ñu ñoom ñi ngi xaar ca yéefar ya yàlla wàcc ci ñoom la nga xamante ni mooy am mbugalam ak la nga xamante ni mooy ak toroxtaangeem moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne saxaaba yi saa bu ñu jugaan jëm xeex ñoom dañuy jàpp ñaari ba ixdal xusnayayn ixdal xusnayayn foofu lañ ko doon jàppee mooy da ngay gañe jël màng ma ñibbisi sa affaire baax wala ñoom ñu rey la nga tàbbi àjjana sa affaire gën a baax ndax ñoom loolaa leen gënal sax faf nag ah jël màng ma ñibbisi fas yéene noos te yàgg-yàgg da ngay dee balaa jàgg nga dee dem àjjana moo la ko dàqal borom bi subhanahu wa taala mu ni yàlla mu ni man maa moom soldaari asamaan yi ak suuf wa kaana allahu sunu borom yàlla masul di dañ di nekk ah azizan di koo xamante ni ku not la ci nguuram moom sunu boroom ku not ci nguuram mooy koo xam ni lépp loo xam ni da bëgg na ko rek da koy def am na ci sañ-sañ waaye xakiman ku xereñ la ku xereñ mooy koo xam ni du def lu jotut du def lu wees tey du def loo xam ne dañ naan baaxut du noonu tey du def loo xam da koy réccu après loolu mooy xereñte al xikma xikma mooy loo xam ni loo def rek noonu la borom sotal lu mu def rek noonu la moo tax alxakim ismun min asmaillahi subhanahu wa taala sunu borom mu ni innaa ñun yàlla arsalnaaka ñoo la yónni shaahidan nga nekk aji seede wa mubashiran di bégale wa nadiran di xuppe ñun ñoo la yónni yow yonent bi shaahidan nga nekk seede gis nga ci jeexintalu suratul xajji yàlla mu ni ngir yonent bi nekk ab seede ci yéen borom bi wax na ci ay ayat yu bari ci alquran ah yonent bi dama ko def mu nekk ab seede ci xeetam waaye aw xeetam nekk ay seede ala naas ci nit ñi moo tax fii mu nekk inna arsalnaka shahidan nga nekk aji seede seede bi nag mooy seede xeet yi gis nga yowmal qiyam yàlla yonent bi saa sallam nee na benn yonent day ñëw benn nit du ko topp benn nit du ko topp yàlla mu ne ko ana saw xeet mu ne ñu ngi nii waar naa leen ñoom ñëpp dañoo lànk xeet wa ni ko nit ñi ñoo say-say ñu ni ko yàlla li mu wax amul de ñun mus maa jaa ana min bashirin wala nasir ñun kuy waaraate sax lañ mës ta gis yàlla mu ne yonent bi kuy sab seede mu ne ko xanaa xeetu Muhammad laaj leen ñi ngi nii même bu ñu ko fekkewul boo leen laajee léegi ñu wax la ñoom xam nañ ci dara tey wallaay danañ ci xam dara ndax seen ab yonent nekkul na leen lépp benn yonent day ñëw andaale benn nit ñun da ngay gis kuy daawa ab diir nit ñi fekk si wuñ ko ñu ni ñu ni diw mënta daawa ah ñun kon mënta daawa ak mën naa daawa ñu ngi koy natt ci nit ñi fekk si la ak bañ laa fekk si xanaa kon yonent ba mënta daawa moo tax gis nga yooyu yu mat di bàyyi xel la ab yonent ak ni mu fooree yàlla di ko wax yu muy daawa te amul kenn nga jàpp ni kon nit ñi ñàkk ñëw rek mooy mënoo daawa déedéet ñun xam nga la ñuy yàq mooy yàkkamti dañuy daawa waaye nastaajilu natija dañuy bëgg li wolof yi tuddee tooba saxal mbaa ma sulli dañuy bëgg bàq bi day tooy léegi ci ngoor gi ñu dem ji bu subaa mu sax ñu góob indi loolu loolu dafa gaaw lool waay ab yonent day daawa ba faatu xoolal fa labitha fihim alfa sanatin illa xamsina aaman lim bi gën a bari bi ko gëm quatre-vingts personnes la te am na ñu wax ni sax matu ko boo jëlee quatre-vingts nga diviser ko par neuf cent cinquante la hawla wala quwata illa billah man na xanaa xanaa chaque cinquante ans kenn mooy gëm sax cinquante ans chaque cinquante ans wala chaque trente-cinq ans benn nit maam day ci misaal du ma la joxe misaal boo ko calculé day mel dañ naan dafa daawa 30 ans benn nit doo ko dugg si ci lislaam te taxu koo découragé taxu koo bàyyi daawa taxut nit ñi ni mënta daawa gis nga yooyu yëpp yu mat a bàyyi xel la moo tax xisasul anbiya fi alquran yàlla wa kullan naqussu alayka min anbai rusul maa nuthabitu bi fuaada gis nga lii ma lay nettali ci nettali yonent yi yëpp ngir nga gën a dëgër moo tax gis nga ndëgëraay googu mbokk yi lu mat di ñaan la est-ce que xam nga ne yonent bi sax bu ko ko yàlla defalul woon mu jeng walaw la an thabbatnaak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila gis nga bu ma la dëgëralul woon sax nga jeng dem ci ñoom loolu bu dee yàlla yonent bi la ko waxoon fa kay fa ko dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon yàlla daal di def nag xeet wi comme ni nga ko wax jeexantal suratul xajji wa takunu shuhada ala annaas yéen yéen ay seede nit ñi yàlla ñu ni ah sunu borom daal ni waaw yéen xeetu Muhammad lu ngeen xam ci ñii yonent bi li mu wax ak di ñu ni yow sunu borom ñii day yonent yàlla sàngam Huut wala Saalix dikkaloon na leen waar leen def leen nangam ak nangam dañoo lank ñoo ko topp yéen fu ngeen jaar ba xam ko ñu ni sunu yonent moo ñu ko wax te lu mu wax dëgg la yonent bi nag daal di ñëw nekk seede ngir xeet bi sallallahu alayhi wa sallam wa mubashiran dafay bégle wa nadiran di xuppe gis nga daawa ci ñaari keno yii lay tege albishara wa nidaara gis nga bépp daawa boo xam ne ah xuppe xuppe xuppe rek boo sàggar ci kaamu xawaariñ koy tàbbi koo xam ne loo def muy da ngay tàbbi sawara boo sàccee ñu nit bàkkaar sax ci tàbbi sawara la boo tàbbee ñu ne xaalis dina fiya abadan xawaariñ moom seeni affaire moom daal rek kenn xamu ko bishaara gi moom murjia ñoo xam ne loo wax ñu ne yaakaar yërmande yàlla yërmande yàlla yaatu na yërmande yàlla yaatu na nit mën na ci dëkk moo tax kuréel yooyu ñuy jàng pas-pas dañ lay wax ni kenn amul ci wasatu ya ah ñee loo wax rek ñoom yaakaar dañuy yaakaar li wolof naan nañ dundee yaakaar ah boo dundee yaakaar mën ngaa bañ a regg de yaakaaroon ko koy dundee bis bu nekk rek mën ngaa bañ a regg de bu soobee yàlla ndax sa mbiri àddina yi sax dundee woo ci yaakaar xam nga loolu xel sax nangu ko sa mbiri àddina yi sax dundee woo ci yaakaar sa mbiri àllaaxira it kon da ngay équilibré daawa bi ci ñaari yëf am na barab yoo xam ni dees fay bégal ñi gëm yàlla waaye am na barab yoo xam ne dees leen di tiital yonent bi daana wax sallallahu alayhi wa sallam ba saxaaba yi jooy waaye daf daan wax ba saxaaba yi reetaan sallallahu alayhi wa sallam daf leen daan waar ci sawara waaye di leen bégal tamit ci àjjana ak la fa sunu borom waajal ci ay xeeti xéewal sunu borom ni kon ñu ngi la yónni shaahidan nga nekk aji seede wa mubashiran di bégle wa nadiran di xuppe ngir li tuminu ngeen gëm yéen ñi gëm yàlla billahi ci yàlla wa rasulihi ak bu yonenteem façon bi yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam di leen xupp di leen waar li tuminu billahi wa rasulih ngir ngeen gëm yàlla ak bu yonenteem wa tuaddiruhu ngeen jàppale ko wa tuwaqiruhu ngeen ormaal ko ngeen jàppale ko ngeen ormaal ko ngeen sàbbaal ko ñetti baat yi benn bu ci nekk damirul ha la jeexee te damirul ha borom xam-xam yi dañoo juwee ci kan lay dellu léegi ci yàlla wala ci yonent bi am na ci mu fassirun dañuy wax ne lépp ci yàlla lay dellu jàppale yàlla ci diineem ji ormaal ko jox ko cër bañ ko war a jox ci wàllu pas-pas watu sabbixuhu te di ko sàbbaal sàbbal kenn du ko defal yonent bi moom watu sabbixuhu moom wér na ni moom ci yàlla lay dellu comme ci yàlla lay dellu ñenn ci mu fassiru ni ñu ne dee kon yépp ci sa suñ borom lay dellu li tuminu billahi wa rasuli ngir ngeen gëm yàlla gëm yonent bi watu addiruhu ngeen jàppale ko watu waqiruhu ngeen ormaal ko moom seen borom watu sabbixuhu ngeen di ko sàbbaal bukratan waxtu suba wa asuiran ak waxtu ngoon am na ci mu fassiru ni ñu ne déedéet dama iri yu njëkk yi ñaar yi ci yonent bi lay dellu te loolu mooy li gën a wér watu azziruhu ngir ngeen jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu taxawal diine yàlla ji watu waqiruhu ngeen wekk ko jox ko cër tuqaddiruhu xaqa qadri waaye nag bu dee yàlla nag comme ti tuminu la billahi wa rasuli bu dee sunu borom nga xam ne bii moom moo ko jagoo watu sabbihuhu ngeen di ko sàbbaal moom sunu borom nag moom bukratan ci waxtu suba wa asilan ak waxtu ngoon léegi ak damair ñi jàng lugal arabiya dañuy wax ne léeg-léeg barab yu mel nii damair yi bu ci jaxasoo damair yi dañ koy delloo ca la gën a jege am na ñu wax loolu mooy lan li tuminu billahi ngir ngeen gëm yàlla wa rasulihi akub yonenteem kon wa rasulihi damirul ha moo gën a jege junj ya kon ci moom la ñuy delloo watu aziru te loolu wax la ju dëgër yoo xam ni ulama luga dañ koy wax te it ñiy tafsir quran tamit mu xaqiquun yi ca ñoom dañ leen fekk ci wax jooju amma wa tusabbixuuhu nag tasbix nag laa yakunu illa lillah moo tax kon day dellu ci borom bi subhanahu wa taala ndax li tuminu billahi wa rasulih kon ngir ngeen gëm yàlla akub yonenteem wa tuazziruuhu ngeen jàppale ko loolu taxoon saxaaba yee jaayante woon ak yonent bi daañu la jàppale ba nga taxawal diine yàlla ji nga jaral ñu li ñu suñuy doom jaral watu waqiruhu ngeen ormaal ko orma ja nag mbokk yi foo ko takk romb na ko kuy ormaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yàlla ca jiitu ñoo xam seen orma dafa yeggoon ba am na ca ñoo xam ni daawuñ siggi xool ko sallallahu alayhi wa sallam orma ji dafa yeggoon ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ci ñoo xam ni seen bëgg gi ñu bëggoon yonent bi yeggoon na foo xam ni mënuma mënta xëy suba ba ngoon te gisul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ormal ci ko ci ay wax nañuy waxee la tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaa baadikum baada gis ngeen démb imaam mi ngi koy jàng ci ci julli gi xoolal loolu la tajaalu duaa rasuli baynakum bu leen di woo yonent bi mel ni morom muy woo morom ma ah eh Muhammad mel ni kuy wax ak sa morom kii du sa moromu bàyyi sax ba ngay wax ak moom noonu aay ji loolu lay tekki laa tajcalu duaa arrasuli baynakum ka duaai baadikum baada qad yaalamu allahu alladina yatasallaluna minkum liwaasa te it nag falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amri moo tax mu ne inna alladina yunaadunaka min waraai alxujara aktharum la yaaqilu ñi amuñu xel ba yow nga bàyyi leen walaw annahum sawaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum maanaam yar bi saxaaba yi àndoon ak yonent bi defe naa waxoon naa leen xisab abu hurayra ba këram la génne di ñëw jàkk ña dégg yonent bi naan eh toog leen toog leen fekk am na benn action bu amoon ci jàkk ji ba nit ñi commencé jóg yonent bi ne di leen dalal na leen toog leen toog leen abu hurayra dégg toog leen rek mu tokk naaju yonent bi génn fekk yére yaa ngi tooy xepp sallallahu alayhi wa sallam yow foo ne woon mu ne ko man damaa ñëw ba jub jàkka ji ma dégg toog leen man na xaw ma toog leen fu mu toog leen toog leen ma toog may allahu akbar xool kooku dégg ndigal yonent bi ñaanal ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga de mawaqif yu mel noonu dafa bari woon lool ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yonent bi digle ñuy diit diitalaka nakk nakkal déedéet saa bu yonent bi diglee rek liñ mënta woon a supporter ak di ko muñ nag mooy koy xas yonent bi ak di ko saaga moo tax ma wax ne gis nga jamono bi ñu toll xeeti sabotage yi nga xam ne ñi ngi koy def di ko jëmale ci yoon sax salam xoli saxaaba yee fi newatul maanaam xoli saxaaba ñoom moom mënuñu woon a supporter loolu déedéet diw sàngam mi ngi sabota yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom mënuñu woon a supporter loolu kon yu mel noonu tawqiiru nabii sallallahu alayhi wa sallam lu mat a xam la lu mat a jàng la mooy naka la ñuy def ba ormaal ko watu sabbixu ngeen di sàbbaal seen borom bu ko latal waxtu suba wa asilan ak ngoon ci aaya ji ak yu ni mel ci la borom xam-xam yi sukkandiku tënk njàngalam yonent bi sasam ci azkar yi mu joxe ci wàllu suba ak wàllu ngoon waaye bukratan fii nag wa asilan bu fekkee dafay dugg ci wàllu azkar yi bukratan qabla tulu ashamsi la ah bukratan qabla tulu ashamsi lay doon waaye wa asilan ah qabla gurubi shams lay doon kon zikri suba avant jant bi fenk zikri ngoon avant jant bi so boo bàyyee ba jant bi fenk nga doog a def sa askari suba jàppal ni ngëneel yu bare bare bari raw na la yu la doon dig dëgg zikri zikri nga de waaye nag lañ ci digg ci yool nag moom mën nga kaa bañ a am zikri ngoon it boo julli tàkkusaan ba nag waaye du boo julli timis ba nag comme ni ko ñenn ñi foogee ñu ngi ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq suba incha allah kon dinañ leeral dëgg-dëgg lan mooy sulhul xudaybiya ak qissa ba na mu tëddee woon nga xam ne ahlu siyar dañ koy nettali di ñaan borom ben taqabbala minna innahu wasamiul alim wa an yatuba alayna innahu huwa tawwabu rahim wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain